Alice, je vous remercie vraiment pour cette présence massive qui prouve que le sujet intéresse tout le monde. Mais moi, je ne fais pas partie des hommes politiques alimentaires qui ont un Dieu. Moi, j'ai un aulet. Je suis un allié du président Macky Sall, vous avez vu sa Nous avons battu campagne pour notre champion qui a bien gagné. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas hélas Diouf dans ce pays. C'est pourquoi je ne suis pas compris. On dit, ouais, mais quel raoulou, quel andal, man, de grec. Ku fen nak man ngay fen. Comme fen kat bu mag bobu duma turu turam. J'ai pas d'ennemis dans ce pays, mais je ne laisserai personne tromper le pays. je donnerai toujours ma position d'homme libre et indépendant j'ai choisi une profession et comme l'appelait Falidou Diop qui est la république la plus démocratique dans le monde c'est la profession d'avocat je n'irai jamais à la retraite on on ne m'affecte pas est-ce que je dois avoir peur de qui que ce soit Je demeure fidèle compagnon du président Macky Sall, le grand chef de la grande coalition Beno Bokoyakar, notre candidat qui a écrasé les autres, même s'il conteste sa brillante victoire en 2019. Mais je n'accepterai pas que des éléments dangereux, comme l'a dit Macky Sall vous avez vu le film, alimenter un débat tout aussi dangereux pour notre République. C'est pourquoi j'ai convoqué l'excellent candidat Macky Sall, le clairvoyant Macky Sall, le lucide de Macky Sall, qui a craché ses vérités. Demain, des milliers de Sénégalais à la place de l'obélisque avec le nous y étions ensemble avec feu Ahmad Dassokho feu Ousmane Tanor Dieng avec Moustapha Niass avec Y'en a marre avec Abdou Aziz Diop Abdou Aziz Tall tant d'autres et feu ndeysaan regretté Mamadou Diop de Mbour pour combattre le troisième mandat mais il y des esprits bornés dans ce pays. Il y a des idiots aussi dans ce pays. Des gens qui osent créer les conditions du chaos social au Sénégal. Le président Macky Sall ne briguera jamais un troisième mandat. Et il l'a jamais dit. kon arrête ce débat. Et il a dit, si vous êtes intelligent, il a répondu à Baroukar Fall. Il dit, l'année dernière, à cette date, on m'avait posé la question et j'avais donné la réponse. Qu'est-ce qu'il avait dit l'année dernière Que j'ai fini, que si j'ai fini un mandat et il me reste un deuxième, si les Sénégalais me font confiance. Et, et donc, En fait, ce qu'on appelle nous, chez les avocats, renvoi. Il a renvoyé le journaliste Babacar Fall à la réponse qu'il avait donnée en 2018. Et il dit qu'il a dépassé cette réponse, c'est terminé. Comme l'avait dit il lui-même, le répète, Cheikh Yansi. Macky Sall a déjà répondu à cette question. Peut-être qu'il a des craintes aujourd'hui de revenir sur sa position, comme il le dit, il a, il a ses raisons. Il aurait dû être plus clair, en fait, en martelant ce qu'il avait dit, en le répétant, mais il n'a pas voulu le répéter. Bon. Maintenant, les autres, je n'ai pas cité, je n'ai pas euh, les nommés, hein, qui racontent n'importe quoi pour faire plaisir à Maxal. Je, je, je, je, je donne l'élément de Maxal qui dit à Ablaïwad. N'écoutez pas cela qui vont vous mettre dans le trou, dans la tombe, et qui seront les premiers à vous quitter au moment où le navire va chavirer. Regardez ceux qui sont aujourd'hui autour de, de, de, de, Ce sont ceux qui étaient les farouches partisans du troisième mandat, de la troisième candidature de Abdoulaye Wade. Ils l'ont tous quitté maintenant. Ils vont pas reconduire cette stratégie encercler Macky Sall l'amener aussi au trou lui avertissait Ablaye Wade et Macky est un homme averti et je sais pertinemment qu'il ne va pas accepter d'être sacrifié par une bande de mercenaires politiques j'ai vu dans les réseaux sociaux dans les débats à la télé à la radio lui-même dit j'ai réglé le problème il dit c'est moi qui ai écrit la constitution je suis à mon premier mandat et des gens comme au Sénégal on aime interpréter oui le mandat est de cinq ans ça c'est la durée réduite de sept à cinq point à la ligne c'est pas la même phrase nul lui me dit toutefois nul ne peut obtenir plus de deux mandats consécutifs on ne parle plus de cinq ans on parle de mandat seulement Si on avait dit nul ne peut faire plus de deux mandats de cinq ans consécutifs, là, il aurait commencé son premier mandat de cinq ans actuellement. On n'a jamais dit, et lui-même le sait, il le Mais gars, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le roi a dit, j'ai rédigé ma constitution. Et lui-même, ici, 2001, il est retourné jusqu'à Et il dit, depuis il a dit ça aux journalistes français. on a limité le mandat, les mandats à deux. Et quand il est venu, il a réaffirmé le principe. Il a seulement réduit la durée. Qu'est-ce qui est donc change Il l'a lui dit. Mais il y a tellement de, Je trouve même pas le terme. Les laudateurs, les, les, les griots, entre guillemets, du président, les yambars du président, hein, des des des des des esclaves du président des gens qui n'ont aucune dignité président Macky Sall fu ñàngee ba ñàng maay taxaw jël défense am parce que maa ko bëgg sama xarit la ak li ma ciy dégg lépp nag kenn li ma ko defaan kenn défense ko Sénégal gi ku we ku ñu wedd ku mën a joxe le contraire na ñëw taxaw ni yow El Hadj Diouf am na keneen ku la gën a défendre waxuma défense dof de mais défendre ko ci ay arguments yu wóor ci point yëpp nag laa wax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 lu fi jar kër-kër gi ñi nga xam ne ñoom magay leen joxee na lekk bu leen joxul duñu naan wala bu fi nekkul dañu xiif wala ñu ngi tiit bu mag yi demee lu ñuy dundee bu ñuy sonal nañ bàyyi affaire yu yambar nañ gëm yàlla même Macky bu fi nekkul li ñu doon dundee ba Macky ñëw mu nañ ko ko dundee mais xalaat ne Macky bu demee rek ñu dee seen ceeb du tooyeeti tax ñu mel ni ñu jëfur buñ jëfuree dañ leen dina leen xaxar ci ci bedd yi buñ jëfuree ñu xaxara leen il faut que ça soit clair donc maa ngi adressé wu aussi bien aux membres de Benno Bokk Yaakaar bi ma bokk ñu ngi ni que aux populations sénégalaises Macky waxam du dañ di wax na ko kon bu leen sonal nit ñi nañ bàyyi débat bi Macky moo la gën a xam ni comme ni mu ko waxee bu nee damay dem kon marché yi dëkk bi dëkk bi day jaxasoo wax na ko sax wax na ko Babacar Fall bu ma nee oui damay dem sama gars yi liggéey bu ma nee non marché yi ñëw parce que moom bëgg na dëkk bi tàkk Macky bëgg na réewam bëgg réewam moo tax mu ne woon Abdoulaye Wade demal demal amoo droit def troisième mandat ba mu ko dëgëree boobu dem Abdoulaye Wade <laughs> lan la ci jëlee gàccee la ci jëlee. buur dem nga dem tere mu të bàyyi ko mu ne mam ne melam ci doo ci am ndam ndax lépp loo def loo xam ne tegoo ko ci yoon tegoo ko ci ngor doo ci am ndam nit day gore nit day am jom te président Macky Sall xam naa am na jom ti gore na bi mu créé bi mu génnee ci démissionné ab euh, PDS dafa créé dekkal ngor dekkal ngor wane dooleen kooku gëw ma ni dina ñëw di ñàkkal boppam fayda ëllëg du ko def kon li ma leen mën a wax mooy ci sama xam-xam ci ni ma xamee Macky Sall bu sama xarit ma bëgg ko lool yéene ko jàmm ëllëg bu fi jógee bu ko neexee bu ñëwaat dem ak succès bu rëy a rëy ndam lu rëy gëw ma ni ñi ko wër mën nañ ko dugal ci kàmb googu comme ni mu ko waxoon Ablaye Wade ñii lay wax ne defal troisième mandat dañ lay dugal ci kàmb gi ci trou bi te njëkk daw ëllëg sa xarit may wax yow di xam ne yow doo def loolu ñàkkuloo fayda am nga fula am nga fayda ñii la wër di wax xam daa sax nawloo woo leen jëpp nga leen ndax dof ci dana wër buur di wax buur di ko xool rek ndeysaan ni ci dof la bale ko mu wax waaye rek Sénégal la bëri dof dof yi solo costume karawaat basin wu fekk dof la ñu kópp rek ni seen bopp yi kópp kópp ak wut xaalis rek kopp ak wut xaalis